Sénégal dafa am gox yoo xam ne dañu nekk en danger maanaam liggéey yi ñu fay def li ñu fay noyyi ak ni ñuy dundee dafa am benn jeexital bu bon bu mu am ci seen dund man su ma jëlee réew mi loolu dina ko dakkal lu tax ma ne dafa nekk en danger mooy dafa nekk dëkk boo xam ne bii dañu fay liggéey zircon fii dañ fiy liggéey acide fii dañu fi gas ay carrière béton dañu fi gas phosphate lu nekk loo xam ne lii dafay yàq environnement bi ndox mi baaxul li ngay lekk baaxul boo feebaree hôpital bi ngay fajoo sax amoo ko ma laaj leen ndax ñooñu amuñu xaalis pour defar fi hôpital amuñu xaalis pour def fi ndox bu doy ñun si suñu programme dañu ne képp koo xam ne kii dangay liggéey liggéey boo xam ne dafa am danger da nga am obligation dañuy def accord cadre ci contrat bi ngay signe pour installer wu dafay am accord cadre boo xam ne bii d'abord hôpitaux yi yow yaa ko fay def yépp centre de santé case de santé hôpital yépp yaa ko fay def avec toutes les spécialités yoo xam ne yi moo war a am ci hôpital léegi bu fekkee da ngay liggéey ci benn gox booy déposer sa dossier pour ñu agréer la da ngeen ci boole benn projet environnemental boo xam ne bii moom mooy protéger gàncax yi protéger garab gi protéger suuf si nga koy toppatoo di joxe entretien yi lépp nga koy def noonu la ñuy defaree réew dineen wax ne Sénégal dafa toll foo xam ne dañu ko war a defaraat képp ku bëgg a defar réew war ngaa indi lii teg ko ci loxo nit ñi lii nag lan ak lan la ndey ji mooy lii kii ab téere la bu tudd construire le Sénégal du futur mooy tabax Sénégalu ëllëg ndey ji nag dafa jur taaw taaw baa ngi nii kii nag mooy doom ji léegi nag pour jot ci lii bulletin baa ngi nii ku votewul Boubacar Camara ah doo jot ci tabax bi de bëgg ngeen jot ci tabax bi waaye bëggu leen ko jot 24 février 24 mars kii ngay jël xëdd vote ndogu jubilé xel yi dal xol yi féex poos yi fees jërëjëf